Bonjour. La garde à vue du colonel Abdullahim Kebe, responsable du parti Réumi, arrêté après le scrutin présidentiel, est le sujet le plus développé dans le quotidien. Le colonel Abdullahim Kebe, ancien attaché militaire à l'ambassade du Sénégal à Washington, ancien directeur de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a été arrêté dimanche à Saint-Louis pour avoir posté un appel à la révolte sur sa page Facebook. Transféré à la section recherche de la gendarmerie de Colobane à Dakar, le chargé des questions de défense du parti d'Idrissa rejoint un détail. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين بقي دمبكي جلتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu leen di nuyoo fii ci Safina TV fa tabarakallah ahsanul xaaliqiina ne sampoo fii ci barab bu barkeel bu ñu duppee Mawlana Cheikh Al Hadj Umar Al Fouti radiyallahu taala anhu ci fii ci Scat Urbam ci émission yi mu leen fàggul ñi jibe fii ci barab bii di Safina TV ñu di ko wax xam sa bopp dégg ko muy njëriñ su ko defee rekk la ku baax ka waxoon rekk ne xarma yàlla yéena dala jàmm ku doon laajte fànn mbir la te cani fa tabarakallahu nag laa jëkk jiital ci wax ji ma bëgg a wax soog a bàyyi wax ndax sama xel maa ma wër waaye sama wërgaa ma wor jublu ci loolu muy séntu ñëw na te loo mën mën waxit teg ca xam la ngay wax ba tax lay wax di nga fi masa bàyyi wax génne ko àdduna bi wuuju suñu borom subhanahu wa taala teg ci ni fa tabaraka allahu di li mu ubbee teg ci ne alhamdulillah mu ne bismillahi di bismillahi ji ab jullit di tàmbalee ci lépp lu muy door moo xam ci wax la moo xam ci jëf la moo xam luy ci lumu di rekk ca nañu ko fi wayaaloon buur bi di borom bi subhanahu wa taala ci jaama ngi jaamu muy lu warub jaam ci diggante ak boromam subhanahu wa taala jaama ngi way boroomam muy lu jaadu tey lu warit ci képp kuy jaam mu xaacu bari noppam tagg yàlla subhanahu wa taala kii di borom way ko tey sax ci di ko jaamu moom ñu yeyoon ñu jaamu mu domm te ma wayee ko ci wowu la way ku mu doon ak fu mu doon ak lu mu doon ak lu mu mën doon te yàlla génn ca neen la looloo di li waral li bu dee wax la mbaa jëf mbaa muy lu mu mën a doon bismillaahi la ñu koy tàmbalee bu dee looy door la bismillaahi la ñu koy tàmbalee bu dee looy tàbbi la bismillahi la ñu tàbbee bu dee looy def la bismillahi nga koy jëfe mooy li waral ni bismillahi gii may doore di ko tàmbalee ci tijjiteel sama wala sax sunu télévision bi di Safina TV ñii doon ñu tey di jaboot ci safinatu saada teg ci ni fa tabarakallahu def ko mu di musulaay di léemaay di kiiraay ci lépp luy catuk bët bu aay làmmiñ ak luy pakk di gàllankoor yàlla subhanahu wa taala di ci musal ba faw sunu kilifa gu tedd gu baax gi ëmb ludul yiw ak yéeneen yu rafet jëmee leen ci jaami yàlla yi subhaanahu wa taala ni moom mooy sama soppe di sama soppe bopp di seenub soppe it di moom alxaaji Ceerno Yero Ousmane Ban di soppe day nit di njaboot day nekk ne di taalibe ci ku tëdd di ku baax ki yàlla subhanahu wa taala xéewalee waa Sénégal tey mu nekk ci ji jamono di maamam Mawlana Cheikh Al Hadj Umar Al Fuutiyu radiyallahu taala anhu ba tax koo toogee tey di kilifay ñëpp ñëpp it nangul ko ko. muy Mawlana di bàyyi alxaaji cheikh Mouhamed Bachir Muntaqa Daha cheikh alxaaji Omar muy sunu muur waa Sénégal ak képp ku njabootuk lislaam ci ji jamono kon nag la góorug yàlla ga waxoon di Mawlaay Ahmed yal na ko yàlla fayal xeet wi sajjidi ba Mawlaaya Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu la ma waxoon la ci wàllu baayam di góorug yàlla ga di maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu li woon daal falam yabaqa illa an nuqaabila bi shukri alhamdulillahi ji dikk ñu di ko sante yàlla subhanahu wa taala ci li ñu doon séentu bokkoon ci niserie Ceerno yi te moo de ba Safina FM ubbee ay buntam te mooy rajo bi ci Scat Urbam bi ci fréquence bi di quatre vingt dix imaam Ceerno ne des na incha allahu taala télévision baa ngi ciy topp te mu ngi ci yoon bi léegi mu agsi te وكل آت على علاته آت تلفزيون صفينا تي في أكسنا فسيني دور أي جوتايم لصفينا اف ام لبنك ما وخاتيرك فتبارك الله أحسن الخالقين كي تخواي جرمو أكي جتهم séddee koy séddale di xajoo kuy jaamu yàlla subhaanahu wa taala ci yiw woo xam ni bu ma sa fàggu la ci dogoom ak njàmbaareem ngarmuteem not ko sidditey mbaaxam xamb ko mu defee lu mu mënee te loolu nag moo di aw maninam ñu séddoowaat lépp ak jaame subhaanahu wa taala boole ci yéneen ñu sell yi fa tabaraka allahu axsanul xaaliqin te moo di bu doon amit ba mu nar caa ñàkke nar caa loro cern tànn ma ñàkk ngar daajoo la ca nekkoon di lor ya ca nekk tamit di ngànnaay mu jox ko ñam mu séqal loola ñu féete mu lépp moom mu tànn des ak yàlla subhanahu wa taala te du ñañ du dellu gannaaw bu lor ya mettee ci moom it donte la ci kaw ñu tooñ ko fi muy meree ak fi xol bi sedd di lor nañ benn lay doon mu doon di ree wàllam yépp yiwe Cerno Xamidu góor Siidi Yorobaan amul genn ku mbaaboolu gu nekk ci moom góor la góor ni la fa tabaarakallaahu génn waar la يرنت صلى الله عليه وسلم واحتي حديثني إن من عباد الله من هم مفاتح للخير مغالق للشر ومنهم من هو مغلاق للخير مفتاح للشر لفطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يده waaye wa waylun liman jacala allahu miftaaxa charri ala yadihi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ne am na ci jaami yàlla yi subhaanahu wa taala ñoo xam ne ubbikati yiw lañu di tëjaakoo ni safaan ci kaw suuf yiw rekk lañ ciy séqit nit fu yiw nar a tëjoo ñu taxaw ko fu safaan nari ubbeekoo ñu taxaw tëj ko yonent bi sallallahu alayhi am na ci jaamu yàlla yi ñu mel noonu te imaam xaaji ca Mouhamed Yoroban foofu la wuyu dikkee nag ca ñooñu di ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax waaye it yonent bi alayhi salaatu ci ni am na it ñoo xam ne safaan bala te moo di tijjikat yi ay la doon di tijjikat yi musibaak yu bon te fu yiw nar a ubbeekoo ñu tëj ko soosale féewale tasaare koy ayok noonale mooy seen yitte imaam xaaji cam yorobaan mucc na ca ñooña bokkul ca ñoom fu aw sori na foofa wuuteeg ñoom te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ñaan tofal ci bu jëkk bi ni fa tuuba liman jaala allahu miftaax alxayri ala yadihi texe ñaan na te yonent bi ne yàlla yàlla texeel jaamam bi nga xam ne day dogalee na ca moom caabi buntu yi di yu baax nekk cay loxoom mooy tijjikati yiw ñi ki cerno lu ci yonent bi teg ñaanuti ne wa waylun liman jaala allahu miftax charr ala yadihi mbugal ak tarson kiy toskore ñeel na jaam bi nga xam ne day caabi safaan ya nekk ci loxoom ji yu yëwadi yi moom buntu yi rekk lay tijji loolu yal nañ ci yàlla subhaanahu wa taala boolu musal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam booluñu ci bu jëkk bi di ñoom ñu baax ñi di ñoom Thierno mucc nag goo xam ne imam ko ci lu mel ni bu mujj bii nga xam ni caabi yiy ubbi ayu ki safaan rekk nekk ci seen loxo mucc bu mu ca moo ko taka moo ko taxa ànd ak jëmi taxaw ak joppi yité nak séddu ci bakkan séddu ci banex xana yàlla rek subhanahu wa taala ak fagu ci jami ngari ak yim tax bu fi lekkoon di naan ba fay fay moy fi ñu nekk tay juma ji na fi rajo bi na fi dara ji na fi

yéeg naa ko wàcc ma muy siggin di jëf benn ko fi njiital réew mu woon ca yooyu la jamono di sunu baay bi di maître Abdoulaye Wade waloo ca pale ba maa nga fa woon jamono li dama xëkk président Abdoulaye Wade mi ngi toog Souleymane Ndéné Ndiaye mi ngi toog imaam xaaji Cerno Yorobaan mi ngi toog alxaaji Tafsir Lay mi ngi toog alxaaji Abdullahi Bari mi ngi toog maa ngi toog matar wadd addu joxe digalam mandargaale ko këyit di yu wér ya ni Cerno Xamid yoroo barab ba law na la ndax ma dakkale ko coow li barab bàngoog lew na la ba ñu génnee présidence Thierno jubali ca bàyyi Thierno Mouhamed Bachir solo ko mbir ak na yëf ya demee buuru yàlla ba subhanahu wa taala li baa Thierno Bachir tofal cay ñaanam nii la barab bi fii mu jee doon di lu lew na Thierno Hamid Yoroban lone ko ñu doon ba fii ñu koy waxee tey ceerno jëlaat li ko lew te muy barab bi delloo lépp yàlla subhanahu wa taala ne bu doon ni bakkan a taxoon mu ci doon yëngu di yéega ko wàcc mbaa bànneexi bakkanam mbaa àdduna kon barab bi tey leneen lay demee lu bokkul ak léegi nekkee ni tey waaye léegub yàlla subhaanahu wa taala la jëkk a jukki sédd boromam jàlloog jaamu yàlla yi subhaanahu wa taala ne leen jumaa jàngoog rëdd daara ji fatal ci dëkkandoom seeni doom boolee kii boromam boolewaat ñépp jur ñi téere yàlla bàngoog subhaanahu wa taala mu jiitu ci dënn yi ba doom yi mën koo teel a dugganteeg leer yu lislaam tega ci ci li leen bu leen jiitu jamono te bu leen jamono raw dugalal leen ci daara ji njàngum tubaab njàngum anglais ngi fi ak njàngum arab muy sangu làkk yi Safina FM ubbi de santé bi taxaw safina xaaj ubbi fa tabarakallah wasnul xaaliqin safina xaaj nag di mas dolli ku mu yóbbu nga aji boo ñibbisee man ma dellu loolu la ci yàlla subhanahu wa taala dogal ku dog jar ku mas xam te dootoo ko bàyyi tey safina tv tàmbali te insha allahu taala yeneen a ngi ñëw yàlla nañu fi lépp fekk nu bokk jëriñu lépp it ndarum di tàmbaleeg ñun àdduna ba kër yàlla ci biir wér ak wérle mucc ak mucc la dund dundule ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dinaa wax ne jaaraama ceerno yaag sa gaay yu baax yi jën ñii la yàlla subhanahu wa tànnal boole laat ñoom alxaaji Malick Diop alxaaji Abdoulahi Bari alxaaji Bàcci Njaay alxaaji Tafsir Mbay fa tabaarakallah alxaaji Daam Njaay li mag ñëwaan allahuma la aduru bëgguma wéyal lim bi ndax ragal dañoo tudde cat ci lim bi waaye ci barab bii ñu duppee tey Cheikh Alxaaji Umar radiallahu taala anhu ba waral dàkkantalam doom di safina muy góor di jigéen fa tabaraka allahu axsanul xaaliqin fii lépp baax ba tax na nit ci kaw loolu kenn du demit sunu directrice bu baax bi di des te mooy madame Gange di aja ñu ma ba bu la neexee sax nga dàkkantalee ko pendal mu gën tubay kon góor baax na jigéen baax na fa tolloog la ma xaaj Malick si sa jinge yàlla yàlla dolli ci moom wér ak wérle mu ceeg mu ci dund ak dundule ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa laaj Serigne Cheikh Ahmed Tidiane seen mu Maktoum ni ko fukki sang yi ñu jukkee ci ñi doon ànd ak yonent doon ay nitu aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko fukk yooyu lim te burdatul madix indi na ko saadun saidu bna awfin talhatun wa abu ubaydatun wa zubayrun saadatun warar wa hamzatun wa kada al abbas bakar sayidna usman sayidna ali sayidna mar fukk yooyu la ñëpp ñu dégale aljanna xaaji malik sis ni jéngee laaj sëriñ cheikh ni ko ña ca des nag سرین شاه نیکا اشان چون برکلا ولی نیپا باخ ما شنیدیم مگه تو مگه زب تو میشه گیر نباخ ما سفینا بی اکنون باخ نیال سبحانه و تعالی تنل امام چه محمد یا ربان بول کوکنیام کوچی لب نگور دیگین توگه یو سنگ لی توگه ای مولا رک لکا یالو تنل الحمدلله رب العالمین نه مام سنو سيدن بابكر سي رضي الله تعالى عنه وخواني الحمد لله نخ أسكن ونه نيتنغن يالا تامل نمالين بو أبوسين خل من غفاي فك لولو بوك جاء تحدث بنعمة الله الشكر وقتاني خير بنا يالا سبحانه وتعالى دفل جسانت يالا لبوك نخ مغور يان لدني وحمام شيخ ابن عربي يبي رضي الله تعالى عنهما تيلا ونرنت دان أن دم يمنيار دي جانج تيسج الحاج مالي رضي الله تعالى عنه مماجي تلولو ونرنت كي دي دفتر بيان كي طريق امام شيخ احمد تيجان الشريف ابو العباس ويسن باب كرسي كي دي دفتر بيان كي يونو امام شيخ عبد القادر جيلاني ومام شيخ عربي يوليسي loolu gën a dëgëral seen kóllëre lu sëñ Babacar fanaane werd verse ko ci compte cheikh lu mu ca soxla laaj maam ibnu arabi ca compte cheikh abdul xaadir jeylaani lu mu ca soxla laaj ñu bokk benn néeg ak benn lal bu ñuy fanaan maam cheikh ibnu arabi yi bi nee na am ci guddi goo xam ni keroog Babacar jaaxal na ma ndax dafa jékki-jékki rek maa ngi tëdd ci lal bi mu nga nekk ci kurusam jékki-jékki rek xaacu benn xaacu mel na lu ñuy yëkkati mu jëm asamaan rek jékki-jékki ne dal nee ma tiit te jóg di ko bés ni ko Babacar lan la lan la mu ne ma yemma la yàlla subhanahu wa taala na ma turam yépp séddee na ma ko tànnaloo na ma ca nag tànn laa moom Cheikh Ibnu Arabi yi nee na ma ne ko Babacar boo tànn mu ne tànn naa baasitu nee na ca laa xamee lu mbiram dana yaatu ñu nag ba ma yàlla tànnloo nee na dama ko ni tànnal ma te yàlla ku mu tànn ku baax nga moo tax ma ni askan wi ñi ci gën yàlla boole na mag ñoom ceerno it fa tabaarakallah suñu xaalixiina cofeel gu mu am ci ñoom ñooñu tax na it yàlla ci seen barke tànnal nako ay àndandoo di soppi ñu xamni ci dëggal lañu ma defoon talif ci moom ca atum mille atum 2001 5 février 2001 li un kaay xarit ma laaj la biir wan la waa ju baax ji ma xam kaay ma won la waa ji ma gis wala bokk ma wax la ko kaay xarit ma laa yéene biir wan la waa ju baax ji ma xam kaay ma wan la waa ji ma gis wala boog ma wax la ko kaay xarit ma wan la lu wér wan la yoon bi yal na nga aw yal na ngay ku neex a waxal lu ma wax nga dégg ko kaay xarit ma wan la li fii mbir la mbir mu doy la di mbir kaay mbiroo ko def ko sa mbir muy sa nga gàddu ko kaay xarit ma wan la nga xam sag bu bii ndeem xamuloo ceer Mohamed Yorobaan ngal la kaay ma wax ko jëmm mbër mu Omar def ko muy sangam di royam sédd xol ba Cerno Bachir sëriñam ba naw na ko topp yàlla moo di soloom feddalee ko jokkale yiw am teraanga fonki nitam ay jaloore yor na ko xol ba leer na yéen a jëriñ biiramay biteem tabana jëmm jaay jikkoom gorana aw manam feeñal na ko yomb naa jubóobu jafe na sab cofeel ci cheikh bi wéree yaru def la ngay xaritam jël teraanga jox la ko gor su jox la cër ku mu doon bari aajo lool te nawet ci ku yëg te pànk mu koy wute jël sax yàbbi ko wax na xàtt xàtt li xay teeye teey ba mel ni ki ndox sëf ba diis te doon ko woyof yam naq xaw na ko àndandoo na doon di ku baax àndandoo na doon di ku baax ca Yemen la lii xewe woon sunu baay muraada ko way Cerno Baan dundal na ko yoona gaa ñu baax a ko def moom itam ñi baax ñi la jóg toppi leen di xeeñtu ngëneel yafa ñoom te am na ko leeru Mustapha ngi ci moom sallallahu alayhi wa cheikh Tidiane di lépp ci moom radiallahu taala an silsilaam di cheikhu Umar radiallahu taala anhu te jël na gaal ga jox ko ko safinaa nga ne war a dem nar a xotti géej ya di loor wuti kër ga tiis jotewul illiyiina xam nga ko yoroo baatinam woyoful loolu cër bi moo ko waral di gindee ka séddale yiw lii la xam te dëkki ko def ko muy soloon di yitteem teg ci séqu kook ñu deful koo ci gis wegeef na ko safina di gaal gëmu jël safina safinatu saada la cheikh alxaaji mar tuddee liggéeyam boobu boobu la muy gaanug texe gi nga xam ne boo ci xësee ba tàbbi kër yàlla rek moo tax ma ne safina ceer wet lu mu jël léppam safina mooy gaal gi mu jël def ko muy solom di yitteem teg ci séq kooku ñu deful te koo ci gis rek weneef na ko ñu ko yàlla boolem koo ci gis wet ko te koo ci gis naw ko ndax góor ñu fayda wu góor ñu bari fayda fayda wu noonu ñoo ko li ces nar ko yóbbu jox ko dayoom ak jigéen yu doy ji mu saam ci anam yu ràññiku kon yéenu leen la ak ñu leen takku leen taxaw takku na jooy na leen na gaal gi ñu doon fi mu jëm dëkkee ji ko gaal gi réew la moom Sénégal gaal gi réew la moom Sénégal tax ba tax mu jëgg ci gaal jëmm gaal gay Cheikhu Omar xol ba xaaji Maligo Cerno fawu daal mu daje fuuti yoo joxoon Mayoro cër ba Maali Gay koko moom Seydou Nooru seede ko Maodo bàyyi ko xalifaam Babacar taxaw fa di moom penku sow bu riir wuti ko Seydou Nooru seede ko ca gannaaw mbay cheikh a taxaw taawu may ya jur wa taxaa doon na bàyyi ba yiiri weñam sëñ bi mooru sedde ko def ko seen taxaw di ko xaar ba mu jub ko cerno ni cheikh yow la ñeen yaa saaxibal waxti ñépp sedde ko sëñ bi mooru jàpp loxoom dar ko fóon ko taf ko ci moom cheikh Tidiane si jëwriñam bàyyi sëñ Muniiru way na ko muy keroog ba mbay nelawee soppe jooy te neen fu nu jëm cheikh ni yàlla moom du ñu wor doom di bàyyi ba wuutu ko tey mayor salaatu bi gëm sunu borom baaxe ma ci mbaaxam man ñuy di ko ñàkk solo wax ak yéen mayor werdu salaatul fatih Cheikh Tidiane si xëymati ji yéen bi jëm ca Cheikh turandoom jox ma xaas ma jàpp ko booba laa tegoo fa di wéy topp gis yorobaan muy ku baax ci Cheikhu Umar jël yoon tasaare ko yal na yàlla doon yërëm ay cëram te fekk fanam yal yàlla yiir yorobaan yal yàlla sàmm ko seen xarit taxaw na ma fii sama way ci cerno du jeex yaru tuutiwul sang la xam na fayda am na ko yal na yàlla ful julli ya ak mu cër ya lekk fa moom ci yeneen bi ak ñi ko gëm yal na ngëm yu dolliku bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa lii daal mbokk yi di bokk jullit yi di soppi yii nu janoon laay tàmbalee sama ubbital jotaay bi jëkk ci Safina TV wàññi boo gis nag ci benn lay tàmbalee ci kàttul yàlla ak maa xam te ku tegu ci yoon yu egg ci dëkk yàlla ñu bokk àgg fa ñu jëm jëriñoo yëpp njëriñ bi tàmbali ñun àdduna ba ca kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kër yàlla سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bonjour. La garde à vue du colonel Abdourahim Kebe, responsable du parti Réumi, arrêté après le scrutin présidentiel, est le sujet le plus développé dans le quotidien. Le colonel Abdelrahim Kebe, ancien attaché militaire à l'ambassade du Sénégal à Washington, ancien directeur de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a été arrêté dimanche à Saint-Louis pour avoir posté un appel à la révolte sur sa page Facebook. Transféré à la section recherche de la gendarmerie de Colobane à Dakar, le chargé des questions de défense du parti d'Idrissa Seck, rejoint en détention une dizaine d'autres militants de l'opposition, selon Vox Populi. Dans le quotidien Vox Populi, Maître Fatou avocate du colonel Kebé, déclare il est victime d'un acharnement du fait de son appartenance politique. Vox Populi souligne que l'opposition dénonce la série d'arrestations dans ses rangs et accuse le pouvoir de vouloir embraser le pays. Enquête revient également sur cette série d'arrestations dans les rangs de l'opposition et affiché à sa une Réumi au cœur. L'opposition en général, la coalition ED 2019 en particulier, le parti Réumi notamment, sont sous le coup d'interpellation et d'arrestation depuis quelque temps, souligne le journal qui indique que le colonel Québec sera très probablement déféré aujourd'hui d'après des sources proches du dossier. Le quotidien note que d'autres rumeurs plus persistantes avancent qu'un fichier audio avec des propos encore plus séditieux ont incriminé l'ancien attaché de défense à l'ambassade du Sénégal à Washington. Et le journal de relevé encore, âgé de 59 ans et à la retraite depuis 2017, il est soumis à l'obligation de réserve jusqu'à 65 ans, car étant toujours officier supérieur de réserve d'après certaines sources. Selon l'AS, le colonel Québec va être déféré aujourd'hui devant le procureur de la République pour atteinte à la sûreté de l'État sur la base de l'article 80 du Code pénal qui a valu un séjour en prison à plusieurs opposants au régime son ancien dont son mentor Idrissa Seck. Dans sa livraison du jour, l'observateur met en exergue les grands défis de Macky Sall pour les cinq ans à venir. En politique toujours, Sud Quotidien s'interroge sur la survie de la coalition Beno Bokoyakar jusqu'au terme du quinquennat de Macky Sall et s'exclame à la une la majorité à l'épreuve du Beno. Le témoin revient sur le résultat du candidat de la coalition, son co-président classé troisième avec 15,67%. Son la naissance d'un leader, affiche le quotidien qui écrit Inconnu du grand public il y a encore deux ans, le patron de PASTEF et la révélation de la dernière présidentielle. Le quotidien parle aussi de l'affaire Karim Wade et affiche sa requête rejetée par la CDAO Karim, candidat à l'ONU. Pour ainsi dire, Karim Wade va déposer son ultime recours à l'Organisation des Nations Unies. Les larmes d'une mère au creux de la vague titre l'Observateur suite au témoignage de Jaina balde mère d'Ahmadou Seidi, un garçon de 3 ans retrouvé mort et jeté dans un sac. Selon la maman, Ahmadou jeté dans un sac, c'est la dernière image que j'ai de mon garçon. Je ne souhaite à aucune mère de vivre le cauchemar qui m'arrange. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous. musibe tedduɓe jaam yalle moon bisimilla moon e kabruji jayndeji jayndeji leydi sénégal garti hande koye toɓɓe kewɗe ene jeeya hen dawrugol nanggegol colonel keɓe kono kadi e gullitagol karim wad toon to o seeɗa yawo ƴetten jayde quotidien jayde nde kañum arti tan koye gullitgol karim wad go wanno to suudu ñawitu ndu uh, seeɗa yawo ɗum noon kanko karim wad o dañani toon ko yinno saabi tan oɗo saaha o wayli jaɓɓal o fayi uh, toon to nation unie jurnoɗen jayde vox populi nde ene andina meɗen o oɗo saaha suudu ñawirdu seeɗa gasni e gueɗe e karim wade jani nde windi e hello muɗum adana la cour de justice de la CEDEAO plus le cas karim wade ko ɗum saabi hujikintoɓe karim wade e ƴewde tan damal gongal ngal ndewata beele ma guddi tan ɓi abdoulaye waddo damal wellitare saabi ha joni jani nde e nder hello muɗum adana windude les avocats de karim wade e tourne vers les nations unies jaynde wonde artude e ko way noon ko jaynde l'enquête e nder hello muɗum ɗum ɗiɗo ɓijo janire ene hollita meɗen rewmi au keur e nder jayde enquête ha joni yankoba seydi jeeyaɗo e landa rewmi ene hollita tan oɗo saaha ko kulihuli nangui ardiɓe leydi ndi saabi tan ene dewi e yimɓe mabɓe ene dadda alin tuna e nder jayde l'enquête holliti tan colonel kebe yo wat feere yaltine e kaso jurnoɗen jayde l'observateur jayde nde kañum arti tan koye gueɗe colonel keɓe jayde groupe futur média nde jayde nde windi e hello muɗum le colonel kebe en prend pour son grade gam wiide tan oɗo saaha kanko colonel keɓe o woni tigi ko hollide ko dadiɗo o wonno ɗum noon lasko makko weɓata kanko gonnoɗo o commandant de la gendarmerie joguiɗo jokkodiral walla mbiyen dirpa so renaki tan maw ɓennine e ñalawma hande o en andina men jaynde l'observateur jaynde les échos kañum windi tan ko le colonel keɓe defere aujourd'hui gam wiide kanko colonel keɓe so renaki tan maw o nowe toon to dumbirdu e ñalawma hande o jani nire en andina meɗen ha joni kanko colonel keɓe o heɗama ko ene tolno e waktuji kewɗi ha min wi jamma fowi hojomaji capanɗe nayyi ɗum ɗon oɗon mbawi yiide ɗum e hello joyo ɓijo jaynde les éco janire en andina meɗen ha joni ko ene tolno e yimɓe jeenayo jeeyaɓe e landa idrissa sek kañumen ma ñaawe e ñalawma hande o kamɓe noon ɓe dewira tan ko yidde noddude moɓodiral walla kay fitina e nder leydi ndi jaynde nde ha joni ene andina meɗen toon to baliyembo dakar ko kuli kuli kuli mawɗi woni toon ɗum ɗon noon ko caggal nde yimɓe ɗiɗo ƴeewi wartade caggal nde neɗɗo goɗɗo ƴeewi kañum ɗeddude hoore muɗum goɗɗo o kañum wino ke ena yana e laana jorndi bebbe goto kañum nanggaɗo ena woppa toon to jeere jaynde l' observateur kañum arti tan ko e cettugol ngol jeynab balde yummum amadou seydi suka jareteɗo e duuɓi tati baraɗo toon to yembal ene nanna e sac kanko yummiraɗo omo holli tan natal ngal wattidi yiide e ɓiyi ko o yiɗum kena ina waɗa e nder sac ha ɗo tolniɗo o jaɓani o ɓiyi ko yalti aduna jurnoɗen jayde direct info jayde nde kañum artani men e ko ganduɗa kañum woni gonka abdoulaye diouf sar jayde nde windi e titode e muɗum abdoulaye diouf sar e maire e maître de yof gam wiide abdoulaye diouf sar ko kañum tigui fowi junggo mum toon to yof jayde nde en andina meɗen tuggude hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi nagganma hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko kanko ɓiɗɗo lebbo o tan ko kanko gañoto toon e sumgoji baɗɗi ɗiɗi fo fof eh, guili e sumgoji eh, gure hono élection local bannoɗi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi kono kadi e référendum bannoɗo hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ha ah, hananganma législative eh, jawtuɗo hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hani sumgoji lefol laamu juɓɓinaɗi hitande hikka jaynde critique kañum waɗɗani ɗon jaynde en hollito meɗen tan oɗo saaha hol jogorɗo wonde lamɗo dakar ɗum noon ko hakkude amadou ba jagorɗo kalfinaɗo ngaalu e faggudu wondude e abdoulaye diouf sar jagorɗo kalfinaɗo oɗo uh, cellal gudiren jaynde walf quotidien jaynide ene andini men tan oɗo saaha uh, nder landa apr caggal nde ɓe uh, pooli e sumgoji lefol laamu oɗo saaha ko haare guure teeru woni e, e ummade saabu diouf sar e moustapha siselo moni hen kala holloti e yidde mum e ardade a dakar gasi ha laaɓi salade aade ɓuuri firtude aadi dokkudiren aadi janggo so jeyɗo ñaawi daleen ak jàmm yéenekaay yi tey dañoo xëyee sujet yu bëri rawatina requête bi Karim Wade déposé woon ci cour de justice bu CEDEAO ak lu ñu teg loxo ñeneen ci ay militants yu coalition yi di 2019 ubbil le quotidien moom dafa def ci xëtam bu njëkk Karim candidat à l'ONU yéenekaay bii dañu xamal ni ginnaaw bi cour de justice bu CEDEAO dàkkee recours bi mu defoon ci luñ ko génne woon ci liste électorale yi ak itam ci ñu ko nangul woon mu doon candidat ci élection présidentielle yu ñu génn moom Karim ak ay avocat am jël nañu dogal ni yóbbu mbir mi ci comité des droits de l'homme ci nations unies vox populi itam xëyee ni mel def ci xëtam bu la cour de la CEDEAO Pli le cas Karim Wade manam ci jamono cour de justice bu CEDEAO pare na ci mbirum Karim Wade mo waral suñu naataango diñu xamal ni avocat yu Karim Wade ñom nenañu nañu dinañu wëyel xex bi te dinañu déposer ab cour ci conseil des droits de l'homme bu nations unies avocat yi di wéy di am yaakaar ni dinañu am ndam kay bi di critique mom di le rek Karim Wade mu ngi joué kartam bu muccu mo waral ñu xey bind Karim Wade fait un ultime wàññeeku à l'ONU leneen lu yéene kaay xëy mooy lu ñu teg loxo ñi fare ci coalition yi di 2019 enquête xëy def ci xatam bu njëkk réew mi au cœur Yene kaay bi di kat ci lu ñu teg loxo ñi fare ak Idrissa Seck suñu naataango jox kaddu ki di maître Abdoulaye Tin. Bok ci coalition yi di 2019 moom mu ngi xamle kaddu yu colonel Kébé yëkkati weesuwul benn yoon lii di liberté d'expression te mënuñu ko daan ak article 95 kii di maître Pape Kanté yëkkati ay kaddu itam ci biir yéene kaay ba tey wax ne jàpp yu ñu ñi fare ak coalition bi di 2019 day wane ni rek moom njiitu réew Macky Sall dafa daal di ragal yéenekaay bi di critique xëy itam ak bi lay wax ak ndaw yu faxe ci opposition bi yu doon jënoo ak tasketu xibaar yi ni ki dëmb ñoom ndaw yooyu lee di xamle rek bu ñu bàyyiwul seeni moroom ñoom pare nañu ngir wàcc ci mbedd mi direct foo xëy ak nataalu Abdoulaye Diouf Sarr def ci xëtam bu njëkk Abdoulaye Diouf Sarr maire et maître de Yoff maanaam Abdoulaye Diouf Sarr moo teg tàkk Yoff yéenekaay bi duñu 2019 Diouf Sarr moo gagné ci élection yu fa jot a jaar yëpp fële ca féef fële ca Yoff yéen kay bi di xamal conseil des notables yu lebu ñu ngi artu ki di Moustapha Cissé Lo moo waral ñu daal di koy déclaré personne no grata Walf Quotidien moom dafa xëy du xamal ni ñu fexe ci nguur yi ci jamono ji seen xel yëpp mu ngi ci élection locale yi la guerre des locales lancée loolu la yéen kaay bi def ci xëtam bu njëkk yéen kaay bi du xamal ni ci xëccoo bu metti moo nar a am diggante Moustapha Cissé Lo ak ki di Abdoulaye Diouf Sarr fële ca Yoff yéen kay bi yemul foofu ndaxte ca wax waxinaan nimzaat ñi fare ci parti socialiste ñoom nee nañu ci jamono ji nekk nekkati ginnaaw nous n'allons plus jouer le second rôle mu dooni seeni kàddu ñu jeexale ko ak l'observateur mi xëy jox kàddu yaayu Ahmed Seydi di xale bu ñu faatoon ba pare dugal ko ci benn saak fële ca Malika yaay ji di dellu si ci lu mu mujjee wax ak doomam muy wax ni li dal doomam ñaanalu ko benn yaay bu am doom lu ni mel daal di koy dal yal na yàlla dolli jaam te sotti ko ci réew mi